incha allah doon inauguré boutique fii ci parcelle unité en face euh, sapeur pompier bi macha allah ñu jot ay témoignages yu bari par rapport ak say collaborateurs wala aussi sa membre de famille ñu wax ci yow ay seede yu rafet rafet alors bala ñoo sori dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyoo mbokk internet di Zal ñu ngi lay ziar. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa maa ngi nuyu ñëpp du ziar ñëpp di leen baal di nuyu sama am gi jàmm di samay dëkkandoo. du nuyu ñi nga xamante si ne ñoom laa war a jiital ci nuyoo bi mu ñi ma yàlla booleel ma ànd ak ñoom di liggéey ki ci jiitu mooy ki nga xam ne mooy baaba ñun ñoo ci topp ak euh, xale yeeg ñëpp ak maduna ñëpp ak maam Cheikh di leen nuyu di leen ziar du nuyu Sénégal jaay yëpp di leen wax bisimilah. ñu ngi la koy delloo bu baax daal di la ziar mais tey ngay inauguré sa boutique boutique bu toll nii yaa ngi macha allah lépp loo xamante ni. ay matériel la mu jëm ci jigéen wala bu góor lépp am fi macha allah ban yëg-yëg ngay am si sa inauguration bi. waaw tey moom vraiment dama kontaan sama xol dafa sedd guy guy ndax vraiment euh, suñu liggéeyee ba ak fi nga xamante si ni euh, muy parcelle war fa ubbi benn showroom bu mag a mag ñëw woote suñu xarit yëpp ñëw vraiment tey bi ma ñëwee sama xol dafa sedd ma ànd ak ki xamante si ni mooy naawal sama xarit bu baax macha allah alors sa diggante ak Serigne Saliou ndax gis nañ nataal bi ci ginnaaw macha allah non bul bul bul kii teniral rek teniral rek teniral rek teniral rek waaw teniral rek ñu waxtaanee ko teniral rek ñu waxtaanee ko parce que foog ñu wax ci ndax Zal Shop la ñu wax te bu ñu ñëwee dañ fi fekk nataal ku tedd ki nga xamante ni wax dëgg yàlla moo ni woon jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ Bamba defoon ci mag ñi donte yaayoo ma ko ma barkeeloo ko alors lan moo tax Zal Shop ah c'est normal parce que tamit nit ak ki mu bëgg yaakaaram di Serigne Saliou Mbacke Khadim Rasoul ñu posé ko ci question rek sori wuñ sax mu daanu leer waaw ñu koy tuub nag parce que jubluwuñ si woon lii waaye lu feeñ ci xol rek ci xol rek waaw day day feeñ ci kanam bi macha allah alors Sall quelques témoignages rek sa diggante ak Serigne Saliou ndax nekk na source de d'inspiration ci yow. nekk na source d'inspiration ci yow. alors boutique bi nga def fi nataalu bu tedd ki tuddee ko Zal Shop lan nga ñu mën a wax ci bu tedd maa ngi ñëpp di ziar di tuub di jéggalu ndax ki nga tudd ñun vraiment dafa sori ci ñun ba tax na mënuñu wax ci moom lu bari mënuñu sori ci moom tamit vraiment ñu ngi tuub ndax mënuñu ci sori daal vraiment mënuñu ci sori ñu ngi tuub. ñu dem ci beneen question. waaw su ñëwee tuuti si sa jaar jaar saal c'était pas évident nga tijji lu mel nii am na foo jaar def nga table wala ngay euh, bëgg cent francs sax mu tëla alors sa jaar jaar man nga si ñëwal tuuti. waaw vraiment man nag euh, fi ma jaar bari na lool en plus yàgg na lool waaye vraiment métti woon na waaye léegi alhamdulilah ndax lu metti ku ne xam ne fu muy mujj. daan nga bëgg a jaay ay bagages wala nga wut ay bagages yoo jaay daanoo ko am. waaw vraiment duloon naa ay jamono temps bu xaw a bu xaw a tar waaye lu mu métti métti ak lu mu tar tar tar dafa am loo xam ne moom lañ gisoon te moom lañ bëggoon tey loolu rek lañ visé woon ba tax na lépp loo xamante si métti woon na ci ñun mënuñu ko woon gis vraiment ambulant nañ plus de dix ans def nañ ko marchand ambulant parcelle ñëpp xam nañu banlieue bi fépp fottu na ci Dakar boo nee diw lañ naa la xam nañ ko incha allah alors euh, boutique bi euh, lan moo si topp après projet yi lan la saa projet yi bari na ndax euh, ku ne xam ne ñun fu ñu débuté ak fu ñu jógee muy xamante mooy HLM ñu toj ko dem fi nga xamante si nii muy Pikine ñu toj ko ñëw fi nga xam ne muy parcelle ñu bëgg ko toj ba mu ko rumbux ñun nag ñu ngi jox yeneen quartier yi ñu xaar ñu préparé ñu ak lu rëy a rëy te xam ne lii dañuy doog a door incha allah. ñaata million la la boutique bi vraiment loolu moom bari na bari na ndax ku ne gis Sancho bi gis nu ñu liggéeyee boutique bi waxuma la produit yi mais étagères yi ak plafond yi ak carreaux yi nga xamante si nii am na ku naan sax gis nañ ko ba màkk man na leen sama boutique man carreaux yu ma ciy def buñ ko doon importer ci asamaan sax dinaa ko indi ndax man xam naa li may liggéey mooy lan. macha allah am na solo alors sañ Nawel ginnaaw bi ñu la siyaaree eh, gis nga sa xarit sa doomu ndey Saliou te ji boutique bu mel nii mu gis ni foo tourné gis ko rek yéen la fa gis yéen ñaar seen diggante buñ ci mënee ñëwal ginnaaw boo nuyoo waaw maa ngi nuyu mbooloo ñëpp ñu turu Sall Sow di kontaan lool vraiment sama xol seet sax di ñëw ci mbooloo mais tey moom mënu ma ñàkk ñëw parce man damay wax ne aw ma benn xarit bu dul ab liggéeykat maag Sall ci liggéey lañ xamante dañoo bokk nekk marché seen dende ñu gis ne ñoo bokk jëm jëm ñoo bokk jëmukaay yàlla naa ne euh, liggéey bi boole nañu ba nga xam ne séq nañ loo xamante ci nii sax amaana euh, séq bu ko ñu ma bokkal te liggéey moo ko moo ko waral moom laa njëkk àndal dem siin ah? waaw seen voyage boobu waroon naa xoromu de effectivement moomu woon yoon bi carrément su ma a waxee dëgg xam nga lool nag yombul ab liggéeykat di ko wax mais moom moo ñëw fekk ma may liggéey mu ne ma carrément séppal sa loxo ci la a nekk ñooñu ànd dem voyage na dem ñëw ànd dem ànd ñëwaat bañ naa bu ñu ne su ma waree tukki la fois passée bi ma waree tukki fekk muy defar kii nii mu ne mu a ne ko man damay annulé sama biir parce que mënumaa dem te anuwu wax dëgg yàlla mu ngi nii du ma du ma du ma du ma bàyyi ma wax la wuuteeg li am te wax dëgg yàlla dañuy séq ci wàllum xaalis loo xamante ne nii su ma ne laaj samay million day fanaan ci moom pendant ay weer sa saa yu ma ko soxlaa dara du ci changé ay miyam day fanaan ci man ay weer te saa yu ma ko soxlaa dara du changé am na ci yoo xam ne sax doo deesu ko mën a wax ndax ndax ndax ndax dafa xóot te wax dëgg yàlla moo it gis na ne liggéeykat laa te man tamit gis naa ne liggéey la moo tax ñu doon waaj chaque jour ko jëfee chaque jour laa la wax soo xëyee sept heures lay ñëw sama bureau fa la ñuy toog naan café ba neuf mu doog génn dem xëy mi ngi nii chaque jour xëyee ci mujj bu xëyee day ñëw gaare dugg ci bureau bi fa la ñu toog waxtaan naan kafe ba noppi moom mu doog a dem yéeg ci kaw kon xam nga ne ñooñu vraiment voilà mi ngi noonu moo tax mënu ma ko fay daal mënu ma koo fay voilà mënu ma koo fay vraiment voilà mënu ndax vraiment Navel vraiment liñ mën a wax moom bari na bariwul ndax lépp luñ commencé ci ab liggéey la ñu commencé di wax ci moom suñu terminé ci ab sànq ba tey yéen a ngi koy gis ci inauguration boutique bi invité yaa ngi ñëw ay invité de marque ñoo xamante ni liggéey la ñu gëm euh, tekki dara ci réew mi macha allah Boucher ak Faram Tou ñoom ñaar xam nga ay doomu ñu ñëw ci inauguration boutique Zal Shop bi macha allah mu nekk benn showroom bu doy waar alors Boucher yow laa njëkk a jox kàddu gi ginnaaw bi ma nuyoo di la ndokkeel ci safar gi euh, maa ngi lay bàyyi nga nuyoo bokk internet maa ngi lay fay Gallo maa ngi lay fay maa ngi lay charré bu baax a baax. di la jox sa wàccuwaay di kontaan ci yow di kontaan ci média bi yëpp di bég ci yéen bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawféex di leen ñaanal taysiir ah di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla ci safar gii ñu dugg ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabi alamin di ndokkale suñu sëriñ suñu wasila sëñ Muntaxa Bachir di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ñu ngi la koy delloo bu baax alors ku la xam-xam na ci liggéey yaa ngi indi sa tenu liggéeyukaay sax nga indi ah ak euh, tenu bu doy waar bi moom nga ñëwee ci boutique gu Shop bi alors Zal Shop di ubbi boutique bu toll nii yow en tant que jeune boo xamante ne fan yii rek def nga réalisation bu extraordinaire ñëpp di ko rafetlu lan nga ñuy wax ci lii nga xamante ne moom la Zal Shop. waaw place ba laa nekkoon Zal sama xarit la sama wëllëre bu yàgg la nit ku baax la koo xam ne du ñu gis ñuy gisante du ñu gis toog waaye dañuy déggante chaque chaque chaque jour pour di waxtaan ci lu bari. lii bi mu koy taxawal maas mi xam na ci dara maas suñu xarit la xam nañ ci dara bi muy commencé ba ni muy jeex te du bii kese bari na yoo xam ne ay ay ay ay ay technique la yoo xam ne ak ay ambition yoo xam ne mi ngi ko war a def incha allah fii ci dëkk bi mu nekk suñu xarit nekk suñu suñu wëllëre tey ku ne xam na ni samedi la restauration day biis yi day jàpp commande yaa ngi noonu foofu di taxarnaase mais dama bàyyi lépp foofu ñëw fii parce que moom moo ko jar te bu dul dara bi Serigne Touba boo xam ne daa bëgg Xaadimu Rasuul te lépp lu muy def Serigne Touba la jiital man mos ta wax man bu coupé te neewul Serigne Touba laa jàppee te loolu nag nit ku la jàppee Serigne Touba doo xam noo koy def moo tax ma ne ñuq foofu restaurant bi bàyyi sama lépp taal sama oto ñëw taxaw fii dugg te li mu def nii nag moom damay dugg naa fier nag ànd ak fierté ànd ak ànd ak ànd ak ànd ak contentement ànd ak mbégte parce que tey safar gi mu inauguré lii rek jar na lu ne ndax fi lay jaaree di dox ba faaw kenn dootu ko cee ci àdduna fii moom ku ko bëgg a yàq moom yaa yàqu ndax bis bi mu ko def bis bu tedd bi bis bu sell bi ba pare ay mbokk taalibe ñëw daje fi ay nitam yu baax ñëw daje fi ma ñëw fi gis fi matériel yoo xam ne nag gëj naa koo gis ndax matériel yi am na benn euh, lave mais lave lave pied bu mu woon ne le boobu maa ko mujjee gis Angleterre bi ma demee Angleterre laa ko fa gisoon lave pied boo xam ne sa tànk yi dañ koy laver ba pare bés ko mu nekk massage encore une fois di massage sa yaram bagage yaa ngi fii mi ngi ma woon ay coco jus yoo xam ni ay sel la won ma ay ay ay ay euh, parce que microbe dafa bari fii Sénégal lu garaaw laa lay wax da ngay gis fii seen rare nga gis watkat watkat boo xam ni day rey microbe da lay wat yow ak benn lancette mën na sànni lancette bi mais rasoir bi moom la lay watee ba tey yow tëndees bi mën na dindi affaire bi nettoyé ko rek mais même tëndeuse da lay watee léegi moom mi ngi lay indil matériel yoo xam ne boo demee Amérique moom nga fay fekk watkat daf ko war a am far force boo ko amul dañuy tëj sa place mi ngi ne la day désinfect day désinfecté kii yi euh, microbe yi lancet yéeg yëpp ak ba pare mën nga ci mën nga def tooyal ay serviette tooyal ay serviette dugal ko ci mu nekk saaru micro-ondes mais nekkul micro-ondes buy defar lekk wala buy tàngal lekk micro-ondes buy rey microbe la maa ngi ko gis fii maa ngi gis tamit ay lampe de feu yoo xam ne xale yu jigéen yi fu mu nekk nii xam nañ ne àdduna bépp liñ bëgg mooy di toxaw di snap muy leer te genre lampe yi ma gis fii c'est des originales yoo xam ni wóor na ma ni jëndeewuñ ko Chine jëndeewuñ ko ci dëkk yooyu nga xam ne dañuy falsifié dañ ko jënde ci réew yi nga xam ne tey ñoo créé loolu mu nekk gaynde boo xam ne tey dafa gëm boppam bëgg boppam créer emploi man jamono ji ku créewul emploi nawloo ma la nit koo xam ne am na yàlla lu la dénk rek boo créé wul emploi nawloowu ma la parce que ñun xam nañ ci dara maas mi day toog suma buntu place day waaru ci yàlla ak yonent bi Serigne Touba chaque jour nga gis dix mille personnes yu ñëw naan la dimbali ma damaa bëgg a liggéey chaque jour nga jël koo xam ne soxlawoo ko mais yërmande ak dimbali bi muy dimbali seen waa kër moo def nga koy jël. pare bari na ci sama place am na ñoo xam ni soxlawu ma leen man restaurant bu yem laa yor mais def naa fa vingt deux emplois pour lan. dimbali doomu aadama yi jàppale doomu aadama yi ndax koo dimbali mi ngi dimbali keneen kookoo ngay dimbali keneen keneen a ngay dimbali keneen muy dimbali dimbali dimbali loolu la chaque jour nit ñi di ko jëlee comédie mais c'est une chose bu réalité la léegi nag man li may ñaan mooy lancer encore une fois adduna bépp képp koo xam ne yor nga as tuut jarul muy bari as tuut rek la pour commencement kenn ñëwul rek na bërët zaal mii ñëwul na bërët palaasam bii tey bëtam mi ngi ci leneen ak leneen ak leneen lii lu ndaw la ci moom man mii sama restaurant bi lu ndaawaa ndaawaa ndaw la ci man kon tey commencement la rek boo ñëwee nag commencé créer deux emplois trois quatre cinq yàlla da dimbali di la tegal loxo ku la bëgg a yàqal sax yaa yàqu boo ci defee fulla nag def ci fayda gëm ko tey kii kon c'est à saluer mu nekk taalibe Sëñ Tuubaa nag mu ah ñu bokk sëriñ bi màggal gi di waaj a ñëw ah mi ngi nii bu màggal jotee lu ne lay def ci samay mbir su may safar su lu ne lay def ci samay te xaaruma woon ci moom kon foog ma bett ko nii foogul woon ni sax dinaa ñëw ndax mi ngi may woo keroog ma naan ko waay samedi sa waay bi maa ko tey def ko noonu mais bi ma ñëwee nii léegi-léegi xam na ni foogu ko woon te gis naa ni foogu ko woon mais sama xarit la nit ku baax la yàlla boole ñu mu nekk nit ku yiw di ko ñaanal nag place am bi nekk ay place place place place te xam naa ni dina ko am ndax dafa gëm boppam ndax man du ma ànd ak ku ñàkk fayda du ma ak ku waye du ma ànd gëmul boppam à part dof dof lu beeg yëpp yëpp yëpp je suis un PDG. macha allah PDG boo xam ne laa j'ai créé vingt deux emplois ba pare cag-cag yi boole ma ko ci. yor naa trente cag cak yoo xam ne ñu ngi ci mbedd mi di cag-cag ñooñu dama leen sax fàtte te ñooñu man maa tax ñuy dimbali seen i njaboot kon je suis un boo xam ni jomm naa di wax lu dul dëgg ci man te kii sama xarit la dama ko gëm te xam naa ni balaa déwén sa ren lañ ko safar balaa déwén dinañu fi woowaat woon ñu yeneen place yi place yi ndax taalibi sëñ Touba la mooy li ne leen wax rek balaa déwén man mii dinaa ubbi yeneen ñaari restaurant barke Cheikhul Khadim ndax sëñ Touba dina ma ko defal far fos ndax sëriñ bi boo ànd ak moom te muy dëgg ci yow loolu day yemb xanaa mu bañ a nekk dëgg ci yow ñi ànd ak sëriñ bi di di wowle yëpp di dëgërle daa des nañu gën a fësal yaa nga may dégg nañu gën a fësal sëriñ bi gën a dëgëral seen diggante ak sëriñ bi gën a yëkkati sëriñ bi boo ko defee barki Cheikhul Khadim loo bëgg da koy am galaw inshallah boo ko deful nag moom waaw ci ngay am ay coono naan waa sëriñ bi yàgg na te fekk yow li na ci xol yi la sëriñ bi di xool am na solo bala ñoo jox Fadam Tou il faut que ñu wax ci question d'actualité benn question boo xamante ne yow war nga ci wax muy Balla Gaye convocation bi mu amoon CNG ak daan yi nga xam ne daan nañu ko en tant que xaritu Balla jige ko bokk ci staff bi alors naka nga jàngatee CNG décision boobu nga waaw jamono ji damaa waxul ci ay Balla Gaye ak ay Pape Diouf ak ay keneen ak keneen mbiri safar gi lañ dëgg te fii li ma fi gën a indi mooy safar gi mu ko def ak taalibe Sëñ Tuubaa gi mu doon kon sanction bi méttiwu la sama yoon newul ci loolu ah. xanaa jëmmi jamono sama yoon néew ci ay làmb ak ay yooyu. dañoo sa xarit la de bu amee lu ko la métti. sama yoon néew ci. Balla bu amee lu ko métti man lay métti ndax maa ko ngemb yóbbu ko mu daan tafaate. kon kay sanction loolu sama jamono ji taluma loolu li ma tal mooy safaru Serigne Touba Xaadim Rasul kii laa tal ci ku may laaj ci loolu nga may laaj kii mokk taalibe la def mbir bisam bii ci bisu safar ma ñëw fi teew ci safar gi. yow sa safar gi la tey la woon noonu lu tax nga reporté ko. waaw sëñ bi moo ne ma ma aj ko ba lundi incha allah ndax daa am ñu may yebalal te ñooñu ñu may yebalal daa am feneen fu ñuy dem tey moo tax sëriñ bi jox ma ndigal ma aj ko ba lëndi sama safar gi lëndi la incha allah rabbi fële ca seeke cop bu neexee yàlla ak bi di ci woo ñëpp di la ci woo nag zaal bu baax a baax pour nga teew ci incha allah merci beaucoup Ketchup alors euh, Fadam yow euh, yaa ànd ak sa doom day ñëw fii ci inauguration boutique Zal Shop bi alors sa impression par rapport ak réalisation bi nga xamante ni euh, Zal Shop def na ko ci boutique bi nga xamante ni moom la tijji fii ci Parcelles Assainies unité 10. waaw am na solo yaakaar naa ne euh, li ëpp li ñu fii gis bi ñu félicité Zal ci li mu def nii li ëpp li ñu gis ci bigit bi dañ leen gis sénégalais bi ñu ko mosaan a soxla dañ koy commandé muy daal di ñëw yaakaar naa ne bëri na matériel yi fi gis yu Ah, ah, Europe bi lañ ko daan commandé di ko indi fi Sénégal daan toog ay 5 jours 6 jours doo cee jot mais ndaw la boo xam ne nii yaakaar naa ne sénégalais ñoo ko mën a jàpp rawatina jigéen ñi lii pris en gros la koy jaay nekk bagage yoo xam ne ni tey ji képp kuy jigéen nga yor entreprise bu ndaw buy judd nga yor salon wala nga yor pause wala lépp looy mënti def war ngaa mën a ñëw ànd ak moom associé ak moom mu jàppale la jaay la prix boo xam ne nii la koo jaay nga dem créer bu ndaw ñu mel ni Sénégal moo leen soxla ñaata xale yi jigéen nga fi gis ñu sol ay lakos yu niroo nga xam ne ñii fii lañ war a dàqi seen wërsëg fii lañ war a nekk pour mën a gis seen bopp fii ci place bi kon lu mën a am dañ koy félicité ñaanal ko yàlla lii mu nekk suñu borom ful ko ba muy géejawaay Pikine yaraax fépp foo mënti dem ñu fekk fa place bu mel nii ndax lii bu nekkee parcelle rek te nekkul pikin nekkut yaraax nekkul bi dakaar loolu moom pertement am lay doon ndax client yi nekk parcelle lañ defaral lii ñu nekk géejawaay dañoo war am seen bos ñu nekk yaraax dañoo war seen bos ñu nekk Canada dañoo fu nekk foo war a dem dafaa war a am ñu ngi koy ñaanal nag suñu borom defal ko ndam defal ko sutura defal ko xew li bari ci lii mu sanc waaw macha allah am na solo li ma wax Kethié Brada lay wax rek duñ taxaw yow koo xamante ni làmbaloog la ba ñëw fii am lu xew ci làmb ji te duñ la si laaj sanction Balla Gaye bi ban jàngat nga ci am waaw sanction Balla bi jàngat bi ma ci am mooy euh, dafa jot làmb rawatina les lutteurs ñu xeex seen indépendance ci wàllu làmb loolu ci Balla numéro 2 lay déparé ndax bokk na ci làmb ci mbër yi gën a populaire ci wàllu làmb boo newul numéro un mën nga ne numéro deux kon Balla Gaye numéro deux bu ko CNG woowee ci noot ngir noot mbër kon Balla Gaye numéro deux war naa mën a rafet tewu te loolu ñu ko woo noonu Balla Gaye war du moom kese moo ko moom Gris Bordeaux war nañ koo gis ci ginnaawam Modou Lo war nañ koo gis war nañ cee gis Ama war nañ cee gis Boy Niang war nañ cee gis ñëpp ndax lu ne métti benn mbër mbër yëpp la war a métti te Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux ak keneen ak keneen a ci yem lépp lu ñuy xeex ngir làmb ki seen rakk yi nekk ci suuf moo tax CNG bi kenn kenn du ne daa bon de mais am na loo xam ne ni tey jii dafa jot mbër am ak xam ak yelleefam ak xam ak yelleefam mooy tey jii man mi ngay jël suma xaalis war naa mën a xam xaalis bi ngay jël ci man fan la jëm li ngay jël ci man man boo war naa mën a xam xaalis bi ngay dagg ci man mais ay centaine de fan la xaalis bi jëm te loolu Balla Gaye di moom la Gris Bordeaux xeex moom la Tapha xeex moom la Modou Lô di tey jii gars yi bañuñu ko dagg seen xaalis waaye bëgg nañ xaalis bi ngay dagg ci ñoom bu ñëwee ba sobité ñu xam ne xaalis bi nga dagg ci ñun fii nii la jëm te loolu mooy kumpa mbëri dëgg la mais mais mais Fadam euh, ak lu mënti doon nga jàpp nii bu ko CNG convoqué warul mën a dem wuyu ji rek déglu lan lañ mais convoqué yaakaar naa ne am na ñoo xam ne sax yow homme de loi da lay convoqué ah. mu fekk la nga nekk ci programme nga woo ko ne ko ah man dama programme woon leneen mën nga ma may ba sàngam def na ko. Ah. Balla Gaye numéro 2 bi ñu ko convoqué ci lettre lañ ko convoqué estafam ak avocat am bind nañ lettre yóbbu ko CNG wane na leen ñoom pare guñu pour ñëw ndax daa am ci yeneen liggéey yu nekk ndax Balla Gaye numéro am na ci yeneen contrat yu nekkoon léegi nag loolu reprendre na ko bu ko paree ak loolu dinañ woo waa CNG ne leen sàngam dina ñëw waaye li ma ciy lancé message mooy bisu Balla Gaye di dem ndax Balla Gaye numéro am na am na am na am na droit buy dem ànd ak avocat am buy ànd buy dem am na ànd droit homme de parole am Balla am na droit wuy gi CNG ba àgg du wax du tontu bu ñu kuy wax avocat mooy wax bu ñu kuy tontu avocat mooy tontu kon lépp lu ci mënti am mooy nañ fi jaaree mbër yi nekk benn nañ fi jaaree pour làmb nekk benn ci lépp lu ñu mënti dugg ñu booloo nekk benn ndax bu ñu suudewoo nekk benn rek ak képp ku mënti ñëw seen dee Bira mën na fay nekk keneen mën na fay nekkaat waaye lépp lu ci mënti am ñoom nañu booloo ñu nekk benn dina am lu bëri bëri lu may mën a apporter seen dund. jërëjëf jërëjëf Fadam Thiaw merci beaucoup. waaw ñu bàyyi la référence. waaw xaaral ma wax ba pare. Moussa Ketchup. waaw mat nga référence. mat nga idole. ndax bi la yàlla nattoo nga génn Sénégal dem bitim réew danga ngaa liggéey dellu siwaat ci sa réew tubaarkalla investir ci sa réew tabaarakallaahu ku ñëw yoof tubaarkalla jàkkaroo restaurant chekka cëp sa yaram daw nga xam ne nag lii lu war a mën a nekk la nga xam ne jeune bu dynamique jeune bu gëm boppam xam boppam xam ni c'est seul travail qui mooy bu sa yow même am nga référence kon tey tabaarakallaahu bu yàlla dogalee Serigne Saliou Sow mii ibbi boutique am bii tey nga def déplacement ak dérangement ànd ak fa dem sa sa doomu nay ñëw di ko encourager lu war a mën a nekk la lii la réew mi bëgg Sénégal fii le toll jeunes yi danoo war a xalaat lan mooy jëmale réew mi kanam dem bitim réew jàng fa la loo xamante ni fa tabaarakallaa ci développement la ne loolu ngeen jël ko indi ko fi seen réew ibbi ko di ko jox doomu aadama yi loolu mooy idole loolu mooy référence yàlla leen yàlla taxaw balaa ren di dëwën ngeen am place ci place balaa ren di déwal ngeen am ay restaurant yi restaurant ci ndakaaru ak fépp ci Sénégal lool lañ leen di ñaanal tabaarakallaahu di ndokkeel bu baax sëñ Saaliw di ko ñaanal yàlla yàlla la yàlla aar taxaw la nga yegg naw yoon benn pak bañ laa ma kontaan loolu nag ndax da tey day day tey quatrième jour safar mu ibbi ko nga gëm sëriñ bi bëgg sëriñ bi du woote la douze safar kon moom tey ji bu dee am quatrième nga ñëw wax fii ak li nga wax ci sëriñ tubaa conseillé ko mu gën a jàpp ci ku tedd gi gën a dëgën xam ne lépp sëriñ bi la sëriñ bi nag boo ko jàppee noo duggee ci moom rek noonu ngay tooyee ci moom kon na gën a dëggal gëm sëriñ bi tey liggéey tey la sëriñ bi dégg la yi maa xala wa dala jërëjëf jërëjëf alors Sall nga tëj ma mu tëj may ma mu tëj rek alors Sall nga tëj rek libéré gars yi ñu ngi seen activités yi bàyyi ko ndax yow ñu bàyyi la rek nga tëj bi fay waaw ak ak nuyu di leen jaarewaat di leen baalu ak di jégalu ñëpp ku ne xam ne jamono bi temps amul vraiment mais boo wootee nit ñëpp ñëw ndax ku ñëwul am na lu la loo xam ne boo ko waxoon vraiment man maa la waroon fekk si sa toog la di leen ñaanal jàmm buuse mi tamit li mu wax yëpp ci moom la nekk vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu àgg ne yoon ndax vraiment lu tax mu gën ma neex mooy yàgg nañu xamante ci liggéey bi ak lépp loo xamante si ni yàlla boole nañ ci ay taalibi sëñ yoo xam ne lu dul liggéey gëmuñu ko man nag li ma gën a neex mu ubbi benn boutique boo xam ne ci weeru safar bi ñu ànd nekk ay euh, xale yu ndaw ndax dañuy doog door vraiment bu mu créé di liggéey ma koy suivre tout le temps tamit ci live ma gis ni muy liggéey ma xam ne jàmbaar ni muy def lay def ndax vraiment maa ko njëkk ubbi entreprise bi yàgg mais ni muy liggéeyee dafa ma neex te maa koy ñaanal yàlla na àgg ne yoon vraiment ni muy liggéeye neex na ma te jàmbaar la ndax lii mu commencé bu ko àggalee incha allah président bi du kenn du maire Serigne Touba tamit du beneen bi ñu ci teg tamit euh, sama xarit bi nga xamante si nii muy Mansour jóge ba yàlla boole ñu euh, mënuma tëj lenn te du duma ko si ñambaas ndax kii euh, kii taalibi Serigne Touba la ndax dinaa leen wax tey su leen doon wax tey dama leen di wax lu mel na kàkkatar nitu kàkkatar su ma leen ko waxee du ngeen ko xam ndax kii mooy kàkkatar ci man ndax kii taalibe sëñ Babacar la taalibe sëñ moo euh, sëñ Mansour taalibe sëriñ Salim di murit xam nga loolu lu garaaw la day aaye safar day aaye lépp kii nag li ñu xamale du lenn lu bëgg sëriñ Touba ma fekk ko musol sol tiset boo xam ne def na sëñ euh, sëñ Babacar def ci sëriñ Salim def ci sëñ Mor mi nga xam ne moo ñu jàngal alxuraan kii nag vraiment mu nekk sunu daaro di fa doxal ca ndar li nga xam ne moom rek moo ko fay doxal muy li nga xamante si ne muy café gi kii nag benn yoon lañ ma sa gisante euh, lii nga xam ne mooy immigration bi damaa jékki-jékki vraiment mu ñëw agsi te ku ne ku ne xam na ne jamono ni mu tëradee da bokk ak sa benn mbokk boo xam ne yéen a bokk benn deret benn famille mu yëg sa programme daal koy déggandeem mu ñëw wala mu ñàkk ñëw waaye kii vraiment jàpp naa ko te dootuma ko baax man nag maa ngi ñaanal suñu borom ni mu fi ñëwee balaa déwén yàlla na ko yokk yàlla yokk ko ba mel ni jumaay Touba xaaral ma jox ko kàddu gi ndax vraiment moom mënul ñàkk a wax. maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam di leen ziar bu baax a baax a baax mën naa ni yàlla moo nu boole. ndax parce que ziyaaru Serigne moo Diop moom dafa jàngee ca daara ja Ndar ñun amul xaaj amul seen képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah rek sunu nit nga bu fekk ñu ñuy yëngu ci loo xamante ni mooy kafe gi dañuy teg ay mbana café di jox jaamu yàlla yi nga xam dañuy ñëw ci ziyaar bi man nag yàllaa ma loo Serigne Saliou du dara nag du hasard loolu man taalibe Cheikh la Sidi Ahmed bu Seydi Jamil mooy sama Serigne. mais Serigne Saliou nee naa ko àllarba bu jot ak àjjuma bu jot su ma tëddee gi Serigne Saliou billaahi wallaahi wa tallaahi kii nag fekk ma may baywaar mu ñëw nuyonteeg man saafonteeg man jël addiyee jox ma ni ma dollil ci mbir mi ma xam ni kii nii taalibe la ma jàpp ko ñu échangeante numéro ma gis STM ma ni lii du ma ko toogaale damay dem bi may ñëw yëgu tàggu ma dama ñëw rek ci man mais dama koy ñaanal sunu borom defal ko tawféex ndar ga mu jàngee alxuraan lu mel ni mu ubbi ko fa loolu maa ngi koy ñaan di ko dagaan ci Serigne Saliou mi nu bokk ndar ga mu jàngee yàlla nag sunu borom may mu ubbi fa lu mel nii parce que sag la yàlla yàlla defal ko jàmm yéen ñi nga xamante ni yéen a fi ñëwit borom teg leen loxo ci barke Serigne Babacar Sy ci doole Serigne Saliou jërë ngeen jëf merci kontaan naa baax mu neex mu nekk murid ñuy déggoo lu bare bare lépp lu ñuy def dañ ci waxtaan ba déggoo ci man ak moom di nga koy ñaanal sama wax du bëri man li ma ko defal mooy ñaanal ko. ñaanal ko ndax ñaan gi ma ko defal mooy li tax moom dafay neex a ñaanal dafa bëgg mbokk. xam nga ni su bëggee mbokk dimbal ay mbokkam ci kanam nga jëm. du ma ko waxal dara ndax ñoo tolloo maa ngi moom xam xam naa ko baax a baax foo ko gisee da ma gis. mais xam naa ne ku baax la ku bëri yërmande si ay mbokkam la dama lay ñaanal nag gudd fan ak wér laa lay ñaanal ak jàmm bu sax dak xaalis bëri ñun dañu bëgg xaalis xaalis lañu ñaan gudd fan ak wér wér la bëri la barke yàlla may si bëgg si maam man kontaan naa si saar waay